dañu yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax jëmñ ci kenn mag secret ba secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 mooy bëggalug yàlla mi fee sax ba faw tey aji bind ji ñun Sëñ Tuubaa ñi def diwaan bi ci ganeeg jamono ki ngeen ci bindéef yëpp kon mooy may yi bëgg may yàlla yay bëgg ko tuuru may yi lay nettali ci biir te may yàlla ko ko defal ci biir weeru gàmmu moom Sëñ Tuubaa ñi amoon ci benn jotaay tey la ñaareelu jotaay bi sëriñ bi fi ñu daane woon dafa waxoon yaa man jaxalta rabial rabial awliya yàlla yaa def weeru gàmm mu ñeel ma maa ko sëñ bi nee na maa moom weeru gàmmu <laughs> ndeysaan kenn mosu gis lu mel noonu sëñ Tuubaa daal lépp di gars de jiiro wala ñi di ko xëccoo rek di ko njëkkantoo sëñ bi nee na maa moom. yaa man jaxal yaa def rabian la awali weeru gàmmu lii mu ñeel ma ay waay mu ne rafanto yëkkati naa ko lii sama lépp ilallaahi jëmee ko ci yàlla al ahad ma muy kenn saa xidmatin mbir moom may borom ak liggéeyal. bi ci kàttanug yàlla li lay si man ñeel gaynde gaa yi nga xam ne jaxat dañoo weddi yàlla nee na naa sama lépp jëmee ko ci sama borom mi tudd ahad moom mi nga xam ne kenn dong la du ñaar mukk sama lépp dama ko yëkkati jëmee ko ci moom waaye ci mbaaxu yàlla ci dooleg yàlla ci kàttanug yàlla fu ma toll damay liggéeyal yonent bi nga xamee ne képp ku weddoon yàlla mooy sa gaynde da ko tagg da ko dafa tagg yonent bi li lay si man jaxat mooy gaynde gaa yi weddi yàlla ñëpp mooy seen parce que moo moo leen doon alak mooy day xamule ada mooy gaynde ak noon yi te lay su bu ko arab waxee mooy gaynde woo gaynde goo xam ne du ragal mukk bëccëg day génn guddi day génn bu ne am na gaynde yoo xam ne ñama ne génn guddi waaye du bëccëg asat lay su moo ko gën a foor ma damee tagg yonente mu ne sëlli ala laysin zava gis nga gis nga sëlli ala laysin kon nga xam ne kon noonu la koy toppee lay su bokk na ci li muy tagg yonente bi sallallahu alayhi ci turam yu bari lay su lay indi naan lay sulay daa mooy gaynde noon yi mooy gari noon yi matam ne yëkkati naa sama lépp ci yàlla rek laa ko jëmee moom mii kenn al ahad mooy ki nga xam ne bi mu sàkkagu dara dafa wéet te soxlul kettu kenn ku ko wéttali kon fu ma toll daal damay jaamu yàlla la bëgg wax di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xamee ne mooy gaynde képp ku wéddi yàlla barakatul muqaddimi barkeeb ka kañu jiital ka al musafin kada kuñ nangu am tinum sabat joñ na li xayri mu jëm ci ku dul man kullama lépp loo xam ne lam yan faa du jëriñi barkeeb ka yàlla jiital ci ñëpp barkeeb ka yàlla nangu am tinoom mu war a ramu lu bari nee na barkeeb ci boppam lépp lu dul jëriñ nga xam ne amul njëriñ ci jàmm bi nee na moo ko jooñ mu jëm ci ku dul man loolu mooy la waxoon ci mu mafaatul jinaan barakatul musafa muxjilatun limit fa wa kullu ma lam yan fa nafat li xayri mu ngi sëñ Tuubaa nee na gis nga barkeeb yonente bu la rek jeex na foo mën a jëm jaru ngay téye ay ngàndaay jaru ngay ay kënu doy na sa ko moo lay joñal lépp la bëgg a joñ barke bi yonente bi ah kon yonente bi barke am na doole yan xaadu dana womatu womatu coobaru lii jëm ci man maa la nga xamee ne ixtaara tànn na ko lii ñeel ma almuxtaaru ko di kuñ tànn bila asan ci lu benn xeeti lor bi man ca dara jaay ka nga xamee ne foo moom almuxtaaru mooy kañu tànn nee na li nga xamee ne saa borom tànnal na ma ko lépp day daal di womatu ca sens di ñëw li ma yàlla bëggal ci xeeti xiiwal ci xeeti xam-xam xam ak xam-xam ak lu lépp lu nit di wut nee na loolee ci boppam mooy wamatul boppam daal di ñëw te nee bu ñëwee benn lott mu ci lépp ci daraja yonente bi nga ne mooy muxtaar yàlla mooy muxtaar muxtaar boo ko déggee ca yàlla mooy koo xam ne mooy tànn lu ko neex def ko defal ko ko neex moo tax ma yéen xaadu dana wamatu wamatu coob réew mu taawa la lii daw jëm si ci man sëñ Tuubaa maa la nga xamee ni ixtaara tànnal na ko lii ñaan ba al mi nga xam ne mooy an mooy aji tànn la ko neex jox ko la ko neex moom nag moom ma defal lépp loo xam ne na ma ko rek loolee moo daal di womatu ñëw ci man bi laa asan ci lurul benn lor bi man ci dara a yonente ba gërëm loo naa anil ilahi walis yàlla muy buur wa anil muqaddami walis ka yàlla jiital ñu jiital ka xaadiman mbir moom may aji liggéeyal ko te wattan moo dana dolle ko xiddami sama liggéey bi nee gërëm naa bég naa nee naa jaajëf yàlla nee naa jaajëf muqaddam bi waaye fu ma toll damay liggéeyal yonente te waxtu wu ne liggéey bi day gën di yëkkati ko ci waxtu wu ne fu ne dana fa yegg moom liggéey bi loolu yàlla def na ko kulliyati sama lépp jëm na ci yàlla bi nabi ci darja yonente bi xaqat yi samay pas-pas ba xawli ak samay wa ak xamal yi ak jëf ja waniyet yi sama yéene sama tawhid bu ma waxee wala ma jëf wala ma yéene te jëf ma lépp ci yàlla rek la jëm waaye ci darja yonente bi day jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal lépp lu muy def rek da koy jaaree ci yonente bi waaye lépp ci yàlla jëm léppam rek ci yàlla jëm kulliyati kooku moom istixraaqa yi lépp day labal dugg kullee sama lépp li laay ñeel na yàlla bil muxtaar ci daraja ko ñu tànn ka si niin ay at wala nga ne wajjantu jëmale woon naa li laay jëmee ci yàlla bil muxtaar yi ca di ko jaaree ca kañu tànn ka kullee sama lépp si niin ay at faa isan mbir moom mooy aji tuufu bi an fa fu noonu gën kaa jëriñi ci mboolem fànn yi nee na jëloon naa sama lépp jëmale ko ci yàlla waaye nag di jaaree ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nag def naa ko ay at waaye nee na ya ko jot def noonu nee la ma yëpp mboolem xeeti fànn yu doomu aadama di bëgg moo xam xam-xam wala xam-xam wala ay may wala ay wilaya loo xam ne góor yàlla dana ko soxla fànn yëpp la ca gën a jëriñe la ma yàlla jox fànn gu ne daal la ca gën a jëriñe loo ko mën a déggee rek nga xam ne fànn gu doo góor yàlla di soxla rek sëñ Tuubaa nee na la ca gën a jëriñe am na at yoo xam ne damaa jëloon sama lépp jox ko yàlla jaaree ko ci yonent bi waaye am naa la gën a jëriñe ca mboolem fànn yi sama borom jox na ma ko kon fànn yëpp sëñ Tuubaa leen moom yaquudu dana womat allahu yàlla oloma la ilaha illallahu xam-xami laa ilaha illallah ilaa fu aadiya dugal ko ci sama biir xol seetal loolu nee na xam-xamul laa ilaha illallah nga xam ne laa ilaha illallah mooy baat boo xam ne boo ko waxee benn yoon te muy dëgg sax yonent bi ne aljina nga jëm waaye xam-xam yi ca nekk kan moo xam lan la anwaar ya asraar ya tajiliyaat yi ca nekk ah tajiliyaatil jëlli yi ak tajiliyaatil xaf yi tajiliyaat yi ya ca ak ya ca nga xam ne boo ko doon misaal nga ne mooy mooy mooy tooyal xolub jullit bi mooy tax nit ki xolam set wicc ndax alaa bi sikrillahi tatma inul xulub wala sikrullahi akbaru yàlla neen tudd yàlla mooy li gën a màgg tudd yàlla mooy dalab xolub ñi gëm yàlla moo tax seen xol naat seen xol sax gàncax gu rafet tabarka la mën a meññ tudd yàlla nee na man sama xol ci lañ ko suuf kenn xamul kañ la kenn xamul kan mooy sëñ Tuubaa ila fu an yaquudu la uluma la ilaha illa allah xam la ilaha loolu kenn xamul maanaam lan la kenn xamul te lii moom rek ngay dégg mu koy wax nag doo dégg de keneen ba ilaa yumil baxsi kuy wax ne xam-xami la ilaha illa allah dugal nañ ko sama biir xol waxaaniye fegal na ma alfasaada lépp luy yàq wal foola ak càggante faal ji mooy baaxil yàlla mi fee sax ba faw moom mi nga xamee ne kafaani fegal na ma addura lor ya wal ufóola ak sox lépp luy yàq wala ak càggante yàq nee na yàlla musal na ma ci moo xam yàq gi di bee koo sama xol wala càggante gi di bee samay làmmiñ mu ñàkk a tudd yàlla yàlla fegal na ma gépp lor waaye lépp loo xam ne day tax ñu ne nit ki ka leer bu nekk ci biir xolam sona tabaarkalla loolu yàlla dàqal na ma ko day firi rek bayit bi mu wax ne ilaa fuwaade yaquudu laahu uluma laa ilaaha illallaah ndax xam-xam yooyu ku mu nekk sa xol rek dootoo yàqati te dootoo càggante te benn lor dootu la gaar te sa ne day jëm kanam daal di aji jëriñ min xayri walis ku dul man kan moo ko def mu ne man yàlla mi nga xam ne saana nii mooma ñoŋalal boppam wa ayada te mu dëgëralal ma boppam yàlla jox na ma loo xam ne ku man sax man nga cee jëriñ loolu ñun ci lañ bokk ak ku dul ñun ci lañ bokk ñu aju ci moom ak képp ku dul julit ba bal sax weesu na julit ñi Sëñ Tuubaa ñëpp koy jëriñu dina yàlla jox na loo xam ne ku dul man da nga ci jëriñu man jëriñu naa ci waaye ku dul man da nga ci jëriñu waaw ah, yàlla nag mooy ki nga xamee ne moo defar sama lépp aar ko ñoŋal ko protéger ko ba noppi dëgëral ma ban yoon wi ma nekk duma ma tarxas mu ko ci waxtu li xayri yàlla man xiya saaqa man adam liyamtisaala xayra amrihi fadaam saaxa màng na man ka nga xamee ne adama saxalal na lie ñel ma imtisaala xayri may topp lu baax rek amrihi ci ndigalam waaw maanaam yàlla ci maanaam yàlla ci boppam yàlla moom nag moo màng li xëyree mu jëm ci ku man al man xiya lépp loo xam ne daf ma ko tere fadaam ci lu sax sax nag nee na yàlla moo màng lépp loo xam ne lum tere la te bëggul ab jaam dox jëm ca mu màng ko mu daw jëm ci ku dul man léegi nag mu màng ma rek ma jëm rek ci topp yiw yi sax rek ci yiw yi kese waaw ma sax rek léegi nga xam ne ci yiw yi rek moom ci lay sax moo tax ma ne saaxa màng na man ka nga xamee ne adaama saxlal na léegi ñal ma imtisaala xayri may toppi imtisaali xayri amrihi may topp yiwi digle bi waaw yàlla moom nag nga xam ne fa daam ta mu saxal ko nee na moo màng nag la xëyri mu jëm ci kuréel man al manhiya lépp loo xam ne luñ terale maam daal yàlla mi nga xam ne moo ma def fu ma tollu maa ngi ci digle ci yiw yi rek lay nekk te sax ca nee na moo màng mu daw jëm ci kuréel man lépp loo xam ne tere moom borom bi subhanahu wa taala dégg nga xarxuttu wammatu naa li lay jëm ci yàlla wala rasul ak yonent bi maa loo xam ne xaada womat na lii jëmee ci man suuli sama laaj ila jinaan bi keroog may tàbbi àjjana nee ne wommatu naa jëmee ci ak yonent bi loo xam ne moo may xëcc ci waxtu ne di ma jëmee ca aljanay suñu borom yi nga xam ne ma mën am lépp loo xam ne maa ngi koy laaj sama borom subhanahu wa taala nee na la may womat ko jëmee ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo tax sama laaj ca aljana sama borom daf ma koy womatal ci waxtu ne moo tax mu ne xat xut womat ci yàlla ak yonent bi ma ay tawhid yoo xam ne maa ay tagg yonent boo xam ne ay tagg yoo xam ne yonent bi laa koy jox ay tawhid yoo xam ne yàlla laa koy jox xaala wommat na a jëmee ci man suuli sama laaj lal jinaan bi karama tabi aljana yéex bu dana jaamu kulli sama lépp bi na bi di ko jaari ci darja yonent bi allah yàlla al ahad may kenn fii kulli saarin ci bépp weer waaye nag wali xayri yi daw na jëm ci kurun man man ña nga xamee ne jaxat a weddi yàlla nee sama lépp day jaamu yàlla sëñ Tuubaa ne léppam day jaamu yàlla lu bokk ci moro day jaamu yàlla kan lay jaamu yàlla muy allahu di ahad xul wallahu ahad yàlla moom mooy kenn mooy allahu mooy ismu saat nee na léppam da koy jaam ndax benn weer rek weeru gàmmu rek la ko jaam mu ne déedéet bépp weer li ko dara weeru muharram ba weeru sulhijja yëpp yàlla sama lépp da koy jaam di ko kennal yàlla moom képp kuy widdi yàlla dàq na la nga daw jëm ci ko du mën kon xasida googu ba tey jeex na muy rabiul awal liya ba tey moom it jeex na ba tey rabiul moom lay indiwaat rabiul awalu liya mooy weeru gàmmu ñeel ma maa moom ba tey mu ne radiya gërëm na ani ci man rabiul awali weeru gàmm bi xëyri suxtuñ ci lul benn sànji xenda si la arsil wali fa yàlla muy borom aras moom muy aji méngoo mbiri julli ji neen weeru gàmm moo dem ba ci yàlla na ko Ahmadu Bamba gërëm naa ko te dootuma ko mireeti mukk ndax saa suñ saa saa su ma demee rek Sénégal ba fekk ko fa damay fekk mu yàkkamti ma moo may njëkk a dalal <laughs> xam nga lii dafa doy waar weeru gàmm mooy dem ci yàlla na ko su ma demee ba fekk ko moo may njëkk dalal laata kenn di ma dalal moom këram lay jaar noppalu waaw mu dalal ma jox ma la ma bëgg yëpp mu jox ma ko waaw moo tax nag weeru gàmm ci moom day dem ci sëñ Tuubaa di ko da koy day dem ci boroomam ni muy demee ci sëñ Tuubaa demee ci boroomam di ko wax loolu loolu defe naa ne moom gars yi amaguñ ko moom radiya an nii rabion la wali joxel suxtu ne desilar si loolu radiya gërëm na an nii ci man lañ daan dégg mooy yonent bi gërëm na wala yàlla gërëm na mu ne weeru gàmm gërëm na rabion la awal weeru gàmm di xëyri suxtuñ si rul benn nag sànji du ma sànji ma ko kon da nga ciy déggee am na ñoo xam ne weeru gàmmu da leen di mere da leen di sànji ngir lan la ñuy def ci gàmmu baaxul ba xëy sutuñ tuuru benn sànji inde si la arsil wali la wax nag gis nga turum jëfandikoo xaras lay dem ca yàlla ne ko wax matu bamba gërëm naa ko ah inde si la arsil fa yàlla muy borom aras alwali te aji méngoo mbiri julli dégg nga kon loolu kenn mas ko gis def naa ne <laughs> bara ani setal na ma min kulli aybin ci bépp ayib wa maral ak tawat waxaadi ni taw mat na ma ilal jinaani ba rek may dugg ci aljana bil xaral ànd koog samay xememte bi yëpp tabaarkalla nee ne weeru gàmmu ci boppam moo ma setal ci bépp sikk wiis bépp ayib weeru gàmmu moo ma ci setal man amu benn ayib man sëñ Tuubaa bépp tawatu xol moo xam rëy a riyaau a zumaatu aaw yooyu yëpp nga xam ne daay ñagasal xolub doomu aadama bi ba tax mu tilim loolu mooy maral yi muy wax ci xasida gi maral yooyu bu nekkee rek ci sa xol nit ki bu xolam tawatee rek bu ñaanee yàlla du mën a jot ci xememteefam fa moo tax gis nga sa maral lay safaanam mooy xaral mooy xememteef moo tax boo tawatee rek doo man a am xememteef moo tax fu ne boo boo tawatee sax ci arab la nga gënoon a bëgg ku la ko jox doo ko xemam lu mel ni banaana jël ko rek nit ki da koy bëgg lool pomme da koy bëgg waaye bu feebaree boo ko joxee sax du ko bëgg lekk waaye nee na weeru gàmmu seetal na ma ci bépp ayib ak tawat waaye mat na ma ba keroog may tabal dina ko samay xememteef yaquulu dana womat lii jëmi lii ñeel ma ilaa duxuliyal jinaan ba keroog sama tàbbi aljana kan moo lay womat mu ne mawlidu ahmada ganeeg jamonog ahmad mu tayibal jinaan ka nga ne moo teeyal xol ba nee ba keroog sama tàbbi aljana li may xëcc mooy mawlid mooy guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono di yowmal isnayni dégg nga <laughs> nee na guddi googu nag moomee womat ba keroog may tàbbi aljana ngir dundal gi koy dundal moo teeyal sama xol ndax saa su ñëwee maa ngi koy dund xaddiniya limaa ma allahu yàlla min ahli badri ma bokk ci waa ahlu badar bi xëyri makki ji ci lu dul benn pexe may na ko waaye raafi an mbir moom muy aji yëkkati ba ca kaw li xadri sama dara nee na ci guddi gàmm mawlik ci la ma yàlla boolee ci waa ahlu badar ma yegg ci ñoom bokk ci ñoom te loolu xoolal wax na dëgg parce que weer wiñ ko ko boolee mooy weer wi mu nekkoon ndar ba muy dem ci tukki ba weeru gàmm yëpp daanu ko ndar ci la ko am waaw ah, fukki fan yi mu ci weeru safar ak weeru gàmm yëpp maa ngi ndar la ko am te booba la gisanteeg waa ahlu badar kon ñi ngi ko boole ci wàllu badar ñi ngi ko ci boole ci biir weeru gàmm kon loolu ba tey suñu borom may na ko ah atani allahu min ahli badri bi xëyri makrin raafi an li xadri nee na pexe mayoon ma ko de yàlla itam yëkkati na sama dara ji ci weeru gàmm boole na ma ci wàllu badar ci weeru gàmm benn pexe mayoon ma ko yëkkati na sama dara ji ci weeru gàmm dégg nga isa xatattu saa yoo xamee ne bind naa man ahmadu ixtasa day gësamu dal di jaayyu xarsullahi gàngu naayu yàlla ga wa sabaxat daal di sàbbal malaayikul ilaahi malaayika yàlla nee na su ma bindee rek xaras ci bopp mooy jaay yëngatu ca kaw waaw aras buy yëngutu ndax malaaka yi nga xam ne ñooy war aras di sàbbal ndax danañ taxaw déedéet ñoom it dañuy sabal parce que dañuy wax ne nit ku ne la ko yëngal moo ko ëpp doole aras mbindum sëñ Tuubaa da ko ëpp doole ci boppam mbindum sëñ Tuubaa da ko ëpp doole loolu nag mënees na ko misaal ci jànginum sëñ Tuubaa su fekkee dana mbind mi ci lagul moom fas lay bay ko wala ca leer ci géejug leer yi lay bay ko te géejug leer ya bokkut ak leerug yonent bi leer yi moom leerug yàlla ak boppam sax du leerug yàlla xaras leerug yonent bi dong la kon mbind mi war naa mën a ëpp doole leerug aras yi ko xam nga moom nee na fi muy toxalee mooy ci géejug leer yi lu bii mun a wiru bi nooril wax yi te géejug leer yi bokkut ak géejug yonent bi bokkut ak leer guñ sàkk yonent bi déedéet foofu lañ tibbee alquran al wi yonent bi bokkuñ fi ñu bay ko alquran sifatun min sifaati la kon nag su fekkee nee na moom foofu lay tibbee ci géej googee taxaras moom ñu ngi ko bind ci leer ak yonent bi salaasam kon nag leeru mbind mi mooy ëpp doon leeru aras moo tax fu ñu koy jàngee xaras a ngi jaay malaaka ngi sabal kon loolu keebal la isa xatabtu ixtasa arsulillahi wa sabahat malayku tibaata malayka yëpp malaykul ilahi wa sabaha daal di sabal malaykul ilahi malayka yàlla ñëpp dañuy sabal kenn du taxaw kon lii mooy daanu leer murid bi bu ñëwee daanu leer ndeke kon ñoom njëkkee wuñ ko te duñ ko mujjee malaaka yàlla na njëkk daanu leer malaaka yàlla di mujjee daanu leer in qaada wamatu na lii jëm ci man fii kitaabati ci samay mbind alxuyóor mboolem yiw yi te nuuru te dana leeral lii ñeel ma al awtaanu dëkk ya wa dóor ak kër yi sëñ Tuubaa nee ne li may bind moo tax sama dëkk yëpp leer sama kër yëpp leer waaye yiw yëpp ma am sama mbind moo ma ko may yiw bu gis rek sëñ Tuubaa neen ma am ko sama mbind ma ko may xam nga loolu moo gën a doy waar yi wu ngeen gis ma am ko rek sëñ Tuubaa ne na ngeen xam ne sama bind rek moom ak may waaye leneen may na kon bind bi am na doole de dégg nga xaada wamat na ilee jëmee ci man allahu yàlla yum nal xatti barkil mbind bi wa madda tàllal na rabi sama borom araaxa loo xam ne dana dana noppal matt sama samag warwaay sëñ Tuubaa ne yàlla wamatal na ma barkil bind bi mbind mi ci bopp barke xam nga nit ki mën naa bind ak xasida moo xam nga wëy ko nit wala nga woy ko keneen ku lu dul nit tax barke ba ca nekk xamoo ko yow danga ko wëy rek ngeen ci xaal bi nga ko woyee ak fi mu la fekk waaye nee na barke mbind mi la ma yàlla jox ma ngëb ko kon da nga ciy dégg ne murit bi jàng xasida sëñ Tuubaa moo koy neex mu sóob barke bi ci yow kenn mënu ci dara nga am barke te kenn du mën a fay barki ba kenn du mën a fay leer ga kon barke bi sëñ Tuubaa moo ko téyal boppam dégg kon ilaya qaada laahu yumnal xatti yàlla wommat na jëmee ci man barkeb mbind mi waaye nee ne jox na ma loo xam ne su fekkoon ne damaa war a war fas war fas di jaar ci yoonu yàlla di daw di dabigaay gaay tax na léegi waratuma sax far naa yegg <laughs> lu moo ci gën yéeme mat madda tàllal na rabbi sama borom tëb na ma loo xam ne araaxa noppal na sax matti sama koor waaye léegi nag du ma war fas ndax fa mu doon jëm yegg naa fa la mu doon bëgg am na ko waa jaani taayiidu la ay suumi mussarahu fi xiddami lu suumi waa ji ani lu na ma yii taayiidu la ay suumi dëgëraluk borom xay suum ga musu diiru sarahu dana ko bégloo fii xiddami sama bit liggéey bi ak lu suumi sama lu suum marayil sami nee na jibril ci boppam léegi bindi bi muy bindi moo tax yàlla yebal ko nam du ko defaloon xasaan ibnu sabit moom it gis nga nee na buy tagg yonent bi jibril lay yàlla de yebal na ko demal nga dëgëral ëxmul maanaam bi ma nekkee ci tukki bi di liggéey nga xam ne jibril ci boppam nee na lu soo malayil sam yi da koo neex lu soo malayil sam mooy lii rek matti lu soo mi xur bi oyob yu mel noonu ilaahi euh, arsulaahi yu mel noonu xuyóoru duyóoru lu mel ne xatti matti lu mel ne xaysoom lu soo mi lu mel ne arabi xur bi loolu mooy lu soo malayil sam neen loolu nag dafa neex jibril ba yàlla yebal ko ne ko demal nga dëgëral ëxmul demal nga di ko dëgëral ci waxtu ne loolu kon kemal la waa ji ani jublu na ma taayidu ci la ay soom yi dëgëralug borom ay soom muus diirub saraxoo dana ko bégloo fi xidami ci sama bit liggéey bi lusoo bi sama lusoo maalayel sam jibil ku bëgg lusoo maalayel sam la waaye gënoo ñu koo bëgg de wajjaani jublu na ma nooru lisaanin arabi leerug làmmiñu arab zamana xurbati ci jamono sama tumurank ba li hubbil bi ngir sopp ak jege nee ne leerug làmmiñu arab xam nga loo gis daa am leer mbir mun ne leer ga rek mu am solo boo dindee leer gi rek jeex na takk mu ngi mel ne safara boo ko fayee dootu tàkkati rek alxuraan bu amul leer gaa ci nekk moo tax waaye bu leer gi dindee ko rek jeex na boo ko jàngee da ngay yëg ne jàngoo dara day mel da ngay mel ni ku tiim ab journal boo gisee nga mën koo jàng di yëg càq sa cërëb di ko yëg mooy dafa am leer gu ci nekk waaye tey ne yàlla bu roccoon leer gi mel ni këyitu journal moom nga téye du la saf dara fu ne buñ ko roccoon sax ña ko daan ña ko bëggoon daan ko toqal doon ko toqante dootuñ ko bëggati dootuñ ci am benn càq dañ koy tëral ne bàyyi ko ne kon dara boo amee leer nit ñi koy fonk ndax leer moom ñëpp ko bëgg defe naa ne moo tax man leeru làmmiñu xarab ñëw na ci man maa ko moom keñ la ko yàlla jox mu ne jamono ba nekkee ci tu tumaranke ba ca tukki ba lépp sopp rek jege sama borom subhanahu wa taala hmm? jege gi ma jege sama borom moo tax jaawal tur bi bi lisaa naare bi laa niyaay tu wataabal xuru bi loolu rek ko waral suñu borom tol ko lam yéen xun yi jubluhun ma mukk waxta taallumi waxtu sama xamlu sama jàng alxuyub alxuyub lam yeen xun yi lam yeen xun yi du ma jublu waxta waxtu sama xamlu du jublu mukk al xuyóob xuyóob ya mooy yu fàddu say un dara loo xam ne yu wër yi dana ma joxe di laqan jëmee ma ci neen aw li xoyob wala ayib ya nee waxtu wa nga xamee ne damaa toll ci xamlu di jàng ak i jàngale nee na xuyóob yi muy yu nëbb yi amul lenn loo xam ne ay ayib walla wala ak neen dana dox sama digganteeg moom maanaam damay jàkkaarloo xëy wu ci waxtu ne waxtu wu may jàng amul lenn loo xam ne maanaam bu may jàng daal dana am lu dox sama digganteeg lu mel ni neen ak ayib sama digganteeg jàng ba du ma ko xam déedéet moo tax ma ne waxtu taallumi waxtu sama xam lu alxuyóob yu nëbb ya lam yan hu nuy jubluhunu mukk say un dara loo xam ne yuuri dana ma joxe dana ma eggali li laqan jëme ma ci ak neen aw li wax yóbbu ayib laqa mooy waxi mbuusur lu mel ni neen yëpp ak jëf yëg yëpp wala xoyog wala ëy bi nee na waxtu wa may xam lu daa yëpp laa jàkkaarloog mboolem xeeti xam-xam yi ba tax na lépp luy neen ak xoyob loolu jubluwul ma man sëñ Tuubaa kon waxtu wa muy jàng day mel ni moom daroon doon jàkkaarloo mbir rek sëñ Tuubaa koo xam ne da nga ko daan jàngal dorso dorso ba nga jàng jàngagul sax moom la gën a mokkal moom la gën a mën maam cor na Ibrahima Faari sëñ Tuubaa da ko daan jàngal bu ko jàngalaat dorso ba noppi na ko mbokk baaxee na mbokkam waaw nga xam ne da koy jàngal lu mel ni mu jàngal ko laxdar yi buntu bu njëkk bi na ko baaxee naa lu ci des te lam ko jàngalul sax moom lay gën a xam lay gën a mokkal loolu kon kéemaan sama wula mañ ixtama xaaruna an i walis duut wa kalkali ak sama xol wa ci kéemaan ya ci yi nga xam ne mooy yu raar yi muy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama làmmiñ dafa aaru ba nga xam ne du du mukk du wax lu doonu dëgg iftiraawu mooy fen boo xam ne amul cislaay fen muy jékki-jékki rek wax loo xam ne amul benn cislaay yaa ko fen noonu rek loolu mooy li gën a bon alquran moo ngi koy wax baatam al am yaquluna iftara ala lay kasiban kon moo gën a bon sax kasi kasi moom mën naa doon loo xam ne muy fen loo xam ne xas na cislaay ba dëgg la waaye dafa am loo ci yokk waaye iftara mooy ko xam ne cosaanu wax ja diggu wax ja ba wax jeem dara nekkul ci dëgg moo tax mu ne lisaane sama lamañ ixtama xaaruna na ci ra i walis duut sama làmmiñ du wax lu doonu dëgg mu ko sama sama làmmiñ dëgg rek lay wax waxal waxal kali ak sama xol sama xol dëgg rek lay wax wa fustu tuufu naa am naa li ma bëgg bil xaraa ci xaraa yi mooy sunna si yonente bi salaa salaam ay sunnatul baydaa maanaam tuufu naa ci sunna yaquulu dana wamatu liy jëm ci man yum nu rabi al awali barkeb weeru gàmm ilantihaa in ci lu muy am yemukaay faddala zila arsil wali nee na loolu nag ngëneelu yàlla muy baru aras tay aji méngoo mbir julli ci la nee na ngeen xam ne barkeb weeru gàmm yëpp day wamatu ñëw ci man barke weeru gàmm nee na du am yëmukaay mukk lépp day womatu daal di ñëw ci man te du am yëmukaay te nee na yàlla muy borom aras rek tey aju méngoom jiy jullit maam ngëneelam lu ma defal la kon loolu moom taxsis rek lañ ciy déggee taxsis moom gaa ñi ne ci borom lay yem kon nag far na yem ci sëñ Tuubaa boog barke weeru gàmm am na foo xam te ne daan ko wax ci kanam baana leel yow ma bii laa taxawuli yumnu yumnu nabi fi rabbil aw nee na wër na ma ping te waxantuwuma ne ko ma di waxantu ma ne leen wallahi barke bi yonente bi mu ngi ci weeru gàmm bu ngeen ko a bi bi dem leen ci weeru mu ni subhaana rabbika tudd na ma sell buur bi rabbil izzati moom muy borom te nga maa yasifuun walis lépp loo xam ñu ko melal ci ay aju wasalaamun jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu ñu yónnee walhamdu melaw sax dàkk te lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin moom muy borom bi néefi kon xasidi googu jeex na muy rabbion awliya ba tey moom lay waxaat rek xasidi yëpp loolu la ko tënkee mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci mi néew ci àdduna arrahimi buur bay ko soob ci àllaaxira arrahimi mu ne rabbi xool aw li liya incha allahu kon mel na ni ñëw tuuti rek وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس dog boobu incha allah kon mu ne rabbiul awliya weeru gàmmu man la ñeel maa ko moom suñ duwaa neen weeru gàmm maa moom ba maa moom weeru gàmm muy raditu an zahri rabbin al awali muwaadi an lisil baqaa il awali barakatul mawlidi kulli aslihat fi ajilin ka ajilin wa rabbiha raditu gërëm loo na an zahri rabbin al awali walis weeru gàmm nga fee dafa xam ne weeru gàmm ko gërëm xasida gi ñu génne danoon weeru gàmm ko gërëm waaw fii nag sëñ Tuubaa dana maa ko gërëm kon moom day gërëm weeru gàmm ba noppi nag weer gàmmu mi di ko di ko di di ko ko gërëm loolu xam ne mas koo gis nag waaw ah, yow da ngay gërëm weeru gàmmu weeru gàmmu di la gërëm te weeru gàmmu bokk yi ku ne xam ne du nit du nit kuñ mën a laal di ko mooy kan te xasidi gi ñu génnee lu mu waxoon eh, xasidi gi lim génne lu mu waxoon moom weeru gàmmu ci boppam da koo gërëm raddi an an anni rabion awali bi xëy suxtun inda sil arsil wali weeru gàmmu dafa dem ba ci yàlla na ko sëñ Tuubaa gërëm naa ko sëñ Tuubaa mooy di ko delloo ngërëm li dégg nga moo tax raditu gërëm naa an zandi rabbi yàlla li walis weeru gàmm mu waa an mbir moom mooy aji dénk ko li sil baqaa i ñeel yàlla muy borom sax ga al awli kay aji njëkk ja ne na ko gërëm yàlla laa koy seedeel yàlla laa koy jox du ko jox kenn dégg nga maanaam gërëm gi ma ko gërëm du ma ko seedaloo du ma ko du du ma ko wax gërëm ko ku yàlla ndax moom moo dem ba ci yàlla seede ko gërëm gi ma gërëm moom weeru gàmm kon moom it gërëm gi ma ko gërëm dama koy seedaloo yàlla yàlla rek laa koy jox moo tax ma gërëm loo na an zari rabial awli wala si weeru gàmm mu waa di mbir moom mooy aji dénk ngërëm la li sil baqaay ñeel yàlla muy borom des ga al awli kay aji njëkk maanaam daal ngërëm gi nga xam ne gërëm naa ko yàlla rek laa koy seedal waaye du ma ko seedal kenn barakatul mawlidi barkeeb ganeeg jamono bu yonent bi nee na aslahat defar na kulli sama lépp fi aajilin fii cëru na ka aajilin ni ko alaxira wa rabbi atama sa sama lépp toonu na ba tey nee na barkeeb juddu yonent bi sallallahu alayhi wa barke gi mu barke mooy bis bu mu judd nee na moo defar sama lépp sama sama lépp man suñ tubaab ba demee ba yéwén kon màggal guddi gàmm gi dëgg-dëgg nag day defar ndeke xolu nit day defer jëmmi nit moo tax mu ne barkeeb mawlid bi moo yéwénal sama lépp ci àdduna ak alaxara waaye moo tax sama lépp tonagu waaye yaquudu li ilal jinaani maa yusur mu ne yaquudu dana womatu lii jëme ci man ilal jinaani ba keroog may tàbbi aljana maa loo xam ne yusur daf may bégloo du man ganeeg jamono ka nga xam ne ne saaxa màng na li xëy mu jëm ci kudu man maa asur lépp lu jafe nee na ganeeg jamono yonent bi nga xam ne lépp lu doon jafe moo ko màng ba man sëñ tubaa sëriñ ma nee na moo may wommat ba keroog may tàbbi aljana loo xam ne daf may bégloo waaw ah, lu may bégloo rek la may womatal di ko indil ganeeg jamono <laughs> guddi gi maanaam guddi gi yonent bi ganeeg jamono nee na waxtu ne moo may defal loolu loolu xam ngeen kenn mosu koo gis yaquudulu ilal jinaani maa yasur mawlidu man saqa li xayri maasur waaw ah, loo xam ne du ma meer mu ko damay bég rek kon kon weer weeru mbégte la weeru xéewal la weer la woo xam ne du weer wu jafe ñëpp buñ dëgëroon dañoo war a nooy ci weer wi xaadaniya limaale na ma al albaaqi yàlla mi fee sax ba faw min ahli badri ma bokk ci waa ahli badar bi mawlidil muxtaari ci ganee jamono ko ñu tànn ka xaalil xadri kay aji yëkkatiku daraja isa katabtu saa su ma bindee ixtasa dal di gësamu arsal maliki arsug yàlla muy buur waxtasa dal di jaayu gësamu bi tas bi ànd ko sàbbal kula maliki bépp malaaka saa su ma bindee arsug yàlla gi ci boppam mooy dal di gësamu jaayu waaye mboolem malaaka yàlla yëpp dañuy daal di sàbbal ngir leer lu ñuy wax daanu leer <laughs> ixtisaasu dana yëngal li xalimi ñeel samay xalimi arsillaahi arsuk yàlla gi maa ibaaxi ànd ko daq ku la jaaleen bépp aji tooñ laay koo xam ne ab fokkat la ab caaxankat la nee na samay xalimi gi saa su bindee rek xarasuk yàlla gi gànganaay ga day daal di gësuma yëngatu ci sansa waaye na may yëngatoo na ngeen xam ne mbooleem ko xam ne ab tooñkat la tey caaxankat day daw day daw du taxaw xalima gi bu mu ko yëkkatee saytaan ak mbokk mag ñëppay daw waaye xaras moom day yëngatu laqana ni sanama lu ci lu li jiitu lisaanal xarabi làmmiñu arab la dal jasaa iri fa jasiira ya an nabiyu yonent ba al arabi yi kay ko jug xarab nee na ba ma nekkee ci jasaa ira maa yomba yi jam xo jasiiratu kooku mooy jasaa ir mooy dun yi mooy barab yoo xam ne ndoxu ko wër lu mel ni maayo lu mel ni ndakaaru gi dañ ko tuddee jasiira ndax ndoxu ko wër mu ne nag ba ma nekkee ci jasiira ya yonent ci la ma sal làmmiñu ci boppam xaada womat na ilee jëmee ci man azzamadu yàlla mi ñëpp jëmale yaajo te jublu ajjëm ci kenn alfardu tey kenn kitaab téeram ba sadaxatan lii mu doon sarax ci man min hu boobu bàyyi koo na fa moom lam an hu te du ma jublu mu ko alan taab lépp lu ne yeddee doomu adama yàlla mi samadu di fardu nee jox na ma alquran de te sarax la ci man nag nga <laughs> wax ne wa léeg-léeg mu ne njëkk dama ko jënd léeg-léeg mu ne sarax la léeg-léeg mu dañ maa may rubon ye sumoon di ko détaay xam nga bi rek waaye léeg-léeg nu ni la koy waxee am na xasida yoo xam ne fu ne loolu rek ci liñ jëm da bind ngir di waxtaanee di ko yàlla may alquran malaka nii nangam malaka nii nangam dégg nga kon lii moom sarax la moom moo tax ma ne lépp lu ne yeddi doomu aadama man Sëñ Tuubaa kenn du ma ci gis wala man da ci taxaw kon loolu ba tey mbind yëpp nang na nga ciy jàngat ne yow doomu aadama wala yow muy taalib Sëñ Tuubaa waroo dox jëm ci luñ luñ lay yeddee wala luñ lay xeebee heure bu ne gis nañ fii ci yoon yi ñu bëri ñoo xam ne dañuy mbuboo yoon yi wane na dañuy jël kàddu yoon yi ak yu yëpp te bis boo leen xoolee wala nga déglu seen kàddu rek danañ wax wax joo xool ñu jëf xam ne dañ ciy xeebee yoon wi te ñoom ci boppam kon loolu daan bi ñoom ci lay wàcc yàlla nañ ci yàlla musal a jox na lii ñeen ma alhaadi yàlla muy aji gindi ji alkitaaba téere bi almuhkama bada buñ xereñee ci solo lu fàdd bada buñ xereñee ay aayam ci solo lu fàdd hëddiyatan muy ak hëddiye lii ñeel ma min hu boobu bàyyi na fa moom woofu wate moom yàlla xakkama mooy aji xatt ji gis nga xam nga fee danoon sadaqatan lii minu fii mu ne hëddiyatan xam nga dañ ko ko jox sarax jox ko ko hëddiya fii mu yàlla muy aji gindee ji fee mu ne samadul fardo yàlla muy aji gindee ji moo ma jox téeréem bi nga xam ne dañ koo xereñee minu ayatun muhkamatun dañoo xereñee ay ayam dafa am ay muhkamat ay ak ay mutasaabihat nee na lépp nag mu doon hëddiya ci man hëddiya la ma ko jox hëddiya mooy nga am yéene rek dajale ak hëddiya ne taxoon ma dem siyaare ji la def alquran jox ko sëñ Tuubaa yàlla moom doy na sëkk moom mooy ajaata ji moom yàlla wasala eggale na lii ci man asaman njëg la man ka nga xamee ne baax a jaay na ànniyee ci man man ka nga xamee ne baax a na ci jënd na ànniyee ci man maa la nga xamee ne baax a xoo jaayan naa ko ko musa bitan mbir moom muy aji saxal dàkk lii ñel ma tóola baax ma doon ku gudd ak jeeku ci lex mu ma jaar nee yàlla la ma ko doon jaay jox na ma njëgg ba noppi saxal ma ma doon ko xam ne damaa gudd ak jeeku waaye ba noppi jox na ma njëg ca boppam kon baax gu njëkk maanaam day tekki janna baa léeg-léeg day tekki jaay day tekki janda ñaar yëpp mën naa nekk gis nga wasarahu bi sàmmanin mbaqasin wasarahu gis nga wasarahu xam nga jënd tekki foofu foofu la mu la fee jaay nañ ko bi sàmmanin mbaqasin njëg goo xam ne gu néew la gu wàññeeku la nga xam ne dërëm yiñ ko ko jaayee bëriwul ba may nettali xisatu yusufa bañ koy jaay ca misra moo tax ne wasala eggal na lii jëmi ci man asaman njëg la man ka nga xamee ne baax a jënd na anee jëlee coon maa la nga xamee ne baaxa woo jaay naa ko musa bitan mbir moom muy aji saxal dàkk lii ñel ma tuula baax ma doon ko gudd ak jeeku laa yaxtafi nëbbuhul mu ko alal baraya mbindeef yi kaw ni sama nekk xaasina sikrillahi di màng seenu tudd yàlla nuuril kaw ni ka nga xam ne mooy leeru mboolem adduna yëpp nee na mbindeef yi maanaam nëbbuwut leen ne baaxaan tudd yàlla su fekkoon ne daa am màng seen bu ko yàlla dinc mën a leen sama xolla la naa loolu moom kéemaan la kawe na lool tudd yàlla ya maanaam tudd yàlla wala tudd yàlla baatab yàlla bu doon xalal ma ne sama xalal la nga waxoon na léegi rek eh, yàlla woo mat na xam-xam yi laa ilaa illallah ñëw dugg ko xol kon demee ne xolam mooy li ëmb laa ilaa illallah nga xam ne bu ne bu doon ab alal moom moo ko moom sañ na koo aaye ku ko neex waaye nag moo tax mu xajal ci ñëpp dem ba ne sax falaa tuaadoo man raaytum faahu yuxriju laa ilaa illallah ku ngeen gis gémmiñam baatam gémmiñam muy génne laa ilaa illallah bu leen ko noonee donte sax gisi leen ko muy julli bu leen ko noonee jàpp leen ne moom yéen rek la ñeen bokk cey kon laa yaxtafi alal baraaya kaw ni nëbbuun bi def yëpp doon gi ma doon xaasina sikirallaahi nuuril kaw ni mànga seenu tudd yàlla mi nga xam ne mooy leeru mboolem adduna yi laxat tabaye na waat naa ne leer na nañ la dal fu jaari fa kàccoor ya kaw nu ba diyaan la alamina nekk gi nga xam ne moom laa nekk euh, euh, jaari di aji nekk kaw nu nekk gi nga xam ne moom laa nekk jaari di aji dëkkaale ba diir alamin yàlla muy aji fent mboolem bindéef yi nee na waat naa ne leer na nañu amul sikk sàkk ba ma nekkee ca kàccoor yi ñoom ñëpp leer na leen ne man yegg naa ci maqaama al mujaawaratu dem naa ba dëkk ak yàlla noonu sax dañoo dem ba xam ko nee na dégg nga moo tax laxat tabee na waat naa ne leer na nañu la dal jaare fa kàccoor ya dégg nga kaw nu nekk gi ma nekk jaar yi di aji dëkkaale ba diir alamin yàlla muy aji fent bindéef yi noonu loolu ñoom ñëpp leer na leen yëqoodu dana womat li jëmee ci man saxru rabial awali weeru rabial awal wa ramadaana ak ramadaana mu fi man loo xam ne aji wedam loola kul la wali bépp waliyu nee na weeru koor ak weeru gàmmu nag ñoo ànd sol seen yi luy rafet jox ma loo xam ne wali bu ko gis rek day tiit na waaye amul foo jëlee lii man de weeru gàmmu ma ko jox xam nga lii maanaam kenn mosu koo gis rek yaquudu lii ina saxru rabial awali wa ramadaana mu fi man kull wali loolu mosu gars yi mënuñ ko am weeru gàmmu moomay womatal ak weeru ramadaan bu doon ci waxee dañuy sol yére ba rafet ba mu jekk ñëw jox ma loo xam ne teraanga hëddee joo xam ne kado boo xam ne wali bi ñëw seet ci ma boo ko gisee da ngay weram yaquudu li zahru rabial awal war ma daane mu fi man ku lawali waay waay waay kii moo xam gàmm kii làmbatu gàmm kii moom daa xam li ci muy bind njëriñu gàmm duñu ñu ko melal ci doom ay jaaju wasalaamu jàmm alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu ñu yónni wala am du melu sax dàkk tarafet li laay aji sax yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy borom bi def ba jeex na mu jël beneen moo tax mu ne bisimilah sos na ma sama wax ci ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaa kon bépp mi def ci àdduna arrahim buur bay ajiram ko soob ci àlaxara la awal weeru gàmmu lii ñeel na ma weeru gàmmu ba tey moom gis nga léegi nag ba loolu la tënkaat xasida gi moom day weeru gàmmu moo ko moom mooy li ma la wax léegi rafantu yëkkati naa axlaami samay xalima si nii na ay at xaadima di aji liggéey lil muntaxaa ñeel ka ñu tànn ka àlla si mooy ka nga xamee ne kafaani fegal loo xam ne ak naqar la dégg dégg nga nee na yëkkati naa samay xalima ay at ba ma ko defee nag lépp dama doon liggéeyal yontu salaa sallam mi nga xam ne moo ma fegal aji tàmp na je c'est-à-dire mooy iblis rek li jublu waaye bu ñu koy xam ne mooy naqar saytaane day tamp nit ki léegi ci dënnam moo waral muy eh, ay fitam ay dënnam ay xolam di tëftu fi loolu yëpp ay seytaane la léegi-léeg day daw ba am na nit ñoo xam ne jëmmi saytaane deret saytaane mooy daw ci seen yaram bi moo tax fu ñu toll duñu am jàmm moo tax mu ne rakontu yëkkati naa axlaa bi samay xalima si nii na ay at xaadima mbir moom mooy aji liggéey lil mën taxaa ñeel ko ñu tànn mooy ki nga xam ne kafa mooy ne moom yonente kafaa ne fegal na ma saadima aji tampone ja baraka na lii ñeel ma fi yox muy sama dund allahu yàlla alkarim moom muy aji tedd barakatan barke boo xam ne ujuruha seenu yool ya lay sa tërim du dog mukk nee na yàlla sama borom sama dund lépp def na ko mu barkeel moom muy aji tedd def na ci barke boo xam ne buñ doon xool yool yi ci nekk ci sama dund ah nee na yool bu du jeex de ñaanoon na yàlla wajaal bi jaay ujóor a daafiya maa li ñaan ci dara jaay yonente bi sama dundu na doon yool yoo xam ne day lëw nga xam ne dundug Sëñ Tuubaa lépp xeetu yool la dundug suñ Tuubaa lépp lu yàlla barke la yool kese la amul leen lu dul yool yeesara yombalal na lii ñaan ma alansira lépp lu jafe man ka nga xam ne laa yéexam ci su lottu xan mumkinin walis amal dara maa loo xamee ne xaj soo lottu na maanaam tëlee na manuñ ko waaye daay li nga xam ne mooy sama noonu waa ji soo lottu na ko mooy tële na ko xeddaay samay noonu yàlla mi tëlihut dara wa maa kaana laahu li yuhdisoo yàlla neen lottuma dara min say in fi samaawaati wala fil ardi innoo kaana aliman xadiran sëñ Tuubaa nee na yàlla mi nga xam ne tëlihut dara dana ma yombalal loo xam ne sama noon yi moom buñ ko bëggoon duñ ko mën a am kon moom moo ko am yàlla mi nga xam ne tëlihut mukk di amal lu mu a amal nee na jox na ma loo xam ne yombalal na ma loo xam ne sama noon yi buñ ko bëggoon ko mën a am ci lott mooy duñ ko mën daal ci gàttal moo tax mu ne yasara yombal na lii ñeel ma al asira lépp luy aji jafe man yàlla mi nga xam ne laa yeex jusu du tëli mu ko an mumkinin walis amal dara lu mu bëgg amal amal ko yombalal na ma maa loo xamee ne ajjisoo tëli na mooy lottu na xedaaye samay noon gis nga wa ajjisoo lottu na xedaaye samay noonu dégg nga allama nii xamal na ma al alimu yàlla muy aji xam bi taaliman xam-xam boo xam ne jasab ñoddina na lii ñeel ma alal ma xam-xam doona dawaraanin ci luru benn tër tër fan gisam ta mu ñoddeeku maanaam amul amul amul distance maanaam dawraanin mooy jamono rek amul jamono joo xam ne ci lay tënku fa ñoddeeku rek daal di jow dégg nga moo tam ne yàlla muy aji xam ji xamal na ma xam yoo xam ne ñoddeeku na xam-xam te amul espace jamono ju muy xaar ak yooyu dafa ñoddeeku rek daal di ñëw àllama ni xamal na alaali bi yàlla muy aji xam lépp taaliman dégg nga nee na yàlla muy aji tedd ji teral na ma tiraanga yoo xam ne kawe nañ ba kenn mën a koo natt ki peese est-ce yàlla moom est-ce que ki nga xamee ne mooy sama xalifa te muy yonente bi maa ko wuutu sëñ Tuubaa euh, nee na mooy xalifatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne maddaxawoo mat ma euh, matxaan yëfoox nee na tagg na ko moom sëñ Tuubaa tagg yoo xam ne la waaw maddaxawoo xadiimuhoo mat an yëfoox wax wal xalifatu loo wax wa rafiq ñu ne kii bi tagg na ko tagg yo xam ne kawe na ndax mooy xalifaab yonente bi mooy àndandoor yonente bi sallallahu alayhi wa mu wax loolu ne neex ma amul moroom moom yonente bi nga xam ne xalifati mooy sama xalifa man sëñ Tuubaa wa jaari yëri fiq te mooy ki nga xam ne mooy ki dëkkaaleeg àndaale bi moom moom yonent bi heure bu ne dañuy ànd ci waxtu ne ñeel na ko xitaab yi sama waxante ak moom waxadaate faj na lii ñeem alxaaja samay aju yëpp wala unaasa te duma xëccoonte kenn wala ujaaja te duma jeng nee na maa ngi nii di waxanteeg moom te bi waxanteeg moom moom yàlla fajal na ma mboolem samay ajo waaye du ma xëccoonte kenn ndax koo xam ne loo bëgg yàlla ñoddi loo ko mu ñëw ci yow kooku doo xëccoo kenn defe naa ne te ma jéng mukk ci waxtu ni mu wax lu amul mukk tabaarkalla asabta dàq na kullama lépp loo xam ne yesu dana naqari aw yëddur wala mu di ma lor li xëyri saati mu daw jëm ci furu sama jëmm te maa naxaa nii du ma jub lu ma ko man koo xam ne yëddur dana lore nee na yàlla lépp loo may naqari wala mu di ma lor dàq na ko mu daw jëm ci furu sama jëmm du jublu sama jëm mukk waaye kuy lore itam yàlla dàq na ko ba doomu jublu kon loolu yàlla defal na ko waa jaani jublu na ma bil bisri mbég kulla muslim bépp julit wa fara daw na li daw jëm ci ku dul man man koo xam ne lam yuslimi doonul julit bépp julit daf may jublu di ma bégal ci waxtu ne ku dul julit moom daf may daw fu mu ma rek wala mu déggee ne maa ngi ci dëkk boobu rek <laughs> waay waay ku la muslim bépp julit waa jaane jublu na ma bil bisri ànd ko di ma bégal na li si waaye daw jëm ci ku dul man man lam yuslim koo xam ne moom du ab julit waa jaane jublu na ma jamaalu baaxin taarub yàlla mi fee sax ba faw laa yasaalu koo xam ne du dañ mukk gis nga du mukk maanaam di am ab taar di sax waaye du dañ mukk di fi sax moom borom bi subhaanahu wa taala day wane ne rek yàlla mi ngi jëflante moom ci jamaal yam gi jamaal yi jamaal mooy koo xam ne ay xéewalam ak la lay jox ay mbégteem ak la lay jox ci waxtu ne comme xasida yi ci mujjanteelu euh, tukki bi ci la ko bind bi mu ñëw ci tukki bi ba nga xam ne léegi nattu yi jeex na xéewal yi ñooy dottee ko ci la ko bind moo tax mu ne jamaalu baaxin nag laay saal waaye jaani jublu na ma jamaalu baaxin taarub yàlla mi fee sax ba foo te jeex yàlla xam nga taaram du so du nee na taaram boobu na moomu jublu laay saal moomu xam du dañ mukk di fi sax wa dar yi sama lor saal dañ na bi max wi ci farag yàlla andi mu andi mu wëlis yàlla far na ko dindi na ko ci man bam si ci amatuma benn coono amatuma benn lor sama lor yëpp saa borom subhaanahu wa taala ko yàlla xitaab yi sama waxante ak moom wala hoo ñeel ko ridaa yi sama ngërëm wala am du cant xol wa sukru ak cant alal xadaa yi yàlla nekk ci ki nga xamee ne euh, mooy aji dogal maa ngi koy maa ngi koy jox ki nga xam ne mooy aji dogal ji mooy yàlla rek mu ne yàlla moom lay waxanteeg moom lay gërëm moom lay cant ci samay xool moom lay cant ci samay cër yëpp moom mi nga xam ne mooy kiy dogal dégg nga ma tamit loolu ñenn ko xitaab bi sama waxante moom waxante mooy communiqué mu mel ni yow muy waxante ak sa moromum sa morom rek téléphone waaw di waxante ak moom téléphone loolu mooy communiqué day communiqué ak yàlla yàlla ma bég naa ci moom gërëm naa ko kontaan wala am du cantu xol wasudu ak cër a xadaa yi jox naa ko yàlla mi nga xam ne mooy aji dogal ci xab na may lée ñal ma alkitaab téere bi di alquran li wàcc ga ngir sa jëmu ji alkarim ji aji tedd bilaa asan benn noone bilaa noone wala asan du ak lor wala etaab du caagin ak yeddaage yàlla may ma sa téere bi de di alquran ngir sa jëmu ji tedd yi xam nga jàng ci gannaaw rek mu ne yàlla may na ma ko fu ne mu ñëw di ko ñaanaat sëñ Tuubaa mooy waajuju mooy yàlla da koy may ba nëpp mu koy ñaanaat xam ne ne yàlla rek la ñu war a ñaan mu ne may ma alquran ngir sa jëmu ju tedd ci lu benn ak noonee ba ma ko mayee na doon loo xam ne kenn du mu ci fekk di ma ko noonee ndax maa ko moom ñaareel ñi may la dara nit ñi añaanee la ko nangam ak <laughs> waaye lor bu mu ci am waaye yeddaange bu mu ci am bu ci benn yedda am yeskuruka dana la sant ak dëxra diiru jamono yow yàlla muraadi sama bëgg-bëgg xaadima mbir moom may aji liggéeyal lil Moustapha ñel ko ñu tànn ka àlla si mooy ka nga xamee ne kafaani fegal na ma asaadima aji tamponé ji te muy iblis yàlla na nga xam ne sama bëgg-bëgg dama koy jaay jëndee ko sa bëgg-bëgg sama bëgg-bëgg rek moo lay sant lu ma bëgg daal mooy di la sant rek sama bëgg-bëgg loolu rek mooy mooy sama objectif waaye fu ma toll di liggéeyal Moustapha yonente bi salaay salaam yonente bi nga xam ne ne aji tàmp ni ji te muy Iblis moo ma ko fegal musal ma ci moom ba mu daw walis ma dootuma jege mukk kon gis nga loolu yëpp moo ko def mu ne saaka fii rabbihal awli mu ne saaka mu ne ba tey waa koy xasida googu jax léegi na day jël beneen xasida ma ne mu ne awonsu danaa muslu bi lay ci kàttu yàlla mi ne seytaane ci seytaane arajimi kat kuñ jàq kuñ dàq mu li sirmande yàlla mu ne maa ngi muslu ci kat nug yàlla mu musal ma ci seytaane mi nga xam ne suñu borom da ko dàq mu li sirmande yàlla daal ne waxaat aasani musal na ma ci sax minu ci seytaane moom yàlla wama waalaaw ak lépp loo xam ne méngoog naag moom seytaane bilaa tasliitin ci lurul muy xirtal say an dara min hu muy bàyyi ko ci seytaane ale di ñëw ci man fii kulli saxrin ci bépp weer wa fii kulli yawmin ak bépp bis wa baana biir na tasaali ko loolu ñeel ma fii rabial awli ci biir weeru gàmmu lii ñeel ma nee ne dama doon muslu ci yàlla musul ma seytaane ndeke yàlla sax musal na ma ci musal ma ci képp koo xam ne njabootu seytaane la te nee yàlla du xirtal njabootu seytaane ak seytaane ñii ñëwaat ci man yàlla fu ne lu mu la gërëm-gërëm du tee dan la natt léeg-léeg mu xirtul seytaane ak njabootam ci yow xool foo toll dégg mu ne yàlla bi ma musalee ba noppi dootul xirtalaat seytaane muy ñëw ci muy ñëw ci yow kon nit lu mu baax baax du tee mën naa ñàkk mucc ci seytaane dégg sëñ Tuubaa ku yéex a mucc seytaane la ci njaarim la doog a muccee ci seytaane géej léeg-léeg daan na mucc seytaane waaye day dem ba yàgg yàlla xeftalaat ci la mucc seytaane dappat gis ci la taalif xasida ay saminillahu ak xasida yu bëri eh, ci la ko taalif lu mel ni inam ne abdillahi taalifoon na ko bu yàgg booba nag xasida la lañ lan tuddee yarub seytaane nga xam ne boo koy jàng seytaane mu ngi yóoxu waaye nee na bi ma la yàlla xamal ne ko seytaane mucc nga ci moom waaye ba dematee ba yàgg suñu borom xirtalaat lay daan mu ñëwaat ci moom mu dal tafa beneen xasida gu tudd bismillahi bilaa waqafin ñeneen ci laa tàggu seytaane ba foofu dégg nga kon loolu lu am solo moo tax yàlla dootul xirtalaat seytaane ak njabootam mukk ñu ñëw ci man weer bu mu mën di mucc naa ci seytaane bépp bis mucc naa ci seytaane te nee loolu leer na ma ci biir weeru gàmm na yàlla defal na ko kon loolu ko yàlla defal la léegi nag kon mu ne rafantu a daahiya mu jëlaat beneen xasida goo xam ne da koo tënkee rek mu jël rafantu am daahiya muddata sinin liman bihi lin xaada anfa al funun barakatul muxtaari ab dat kaw nii xadiimahu wa huwa nuural kaw ni rafantu yëkkati na am daahiya am daahiya samay tagg muddata sinin diirub ay at liman jëmee ko ci ka nga xamee ne bii ci darajaam in xaada ci la wamutoo lii jëm ci man anfa al funun gën kaa jëriñ ci mboolem fànn yi ne ne naa samay tagg samay xelima daal ci gàttal dama doon bind ay xat di o jëmee ci yonente bi di ko tagg rek ci waxtu moo tax mboolem njëriñ yi mboolem fànn yi la ci gën a jëriñ moo xam xam-xam wala xam-xam ak lu man a doon rek loo xam ne nit dana ko soxla diggante ak boromam lépp nee na la ca gën a jëriñe nee loolu dafa daal di womatu womatu coobaru ci boppam ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barakatul muxtaari barkeb ko ñu tànn ga abdat feeñal na kaw ni sama nekk moo di ko liggéeyal te waxoote moom yonent bi nuurul kaw ni mooy leeru mboolem univers yëpp monde yëpp barkeb ki yàlla tànn maanaam nee na barkeb bi mu am moo tax maanaam xadiim gi ma doon feeñ ba ñëpp xam ko ma siiw ñëpp xam ma moo tax ñëpp dañ lay xam barke barke bi moo moo tax ma ne barke bi ko ñu moo feeñal doon gi ma doon xadiimam bi koy tax ma siiw ñëpp xam ma waa aduna malaayka yi xam ma boo demoon ca malaayka yi sax lawhul mahfuus ñëpp xam nañ ma loolu yëpp barke bi yonent bee ko waral te nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy leeru kawn bi kon ku koy liggéeyal leer googu moo lay topp ba nga siiw kon ku bëgg a siiw rek ñaareel da liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci siiw moom loolu boo ko defee rek da nga daal loolu mooy galaaj bi a yomb ci xeet